di jaajëfal Cheikh Mor Ndiaye bàyyi di ñaan suñu borom yàlla na yàlla yokk leeru sëñ Fallou maa ngi sant mbokki jullit yëpp fa tabaarakallaahu ñi nga xamante ni ñëwoon nañ ci bisu sëñ fàllu bii nga xamante ni ndigal lu bàyyi ko woon ci sëriñ Abdoul Ahad Mbàkke la mu ni ko ñaar fukki fan ak juróom yu dikkati ci weeru digg dee ci ñaanal Cheikh Mor Ndiaye Dabaye ah fa tabaarakallaahu ñi ñëw ak ñi ñëw ak ñi ñëwul ak ñi amoon yéene ñëw te yàlla dogalu ko ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm na ma leen ko daan waxee rek su ñu ko manoon kenn ku ci nekk dañu lay fekk ci sa kër waaye léegi-léegi jamono ji xaw a xat te ren màggal gi fi ma fekk xaw na maa fekk ci ay jafe-jafe yaram loolu rek moo tax xëy na ñu bari sax ñu ma daan gis gisuñu ma waaye nag ñoom ñëpp maa ngi leen di jéggalu di leen xamal ni incha allahu rabbi ngeen ñaanal ñu rek ba bu déwénee ñu mën koo fekkewaat bu ñu ko fekkee incha allahu rabbi nañu daan def rek ñu continuer di ko defee noonu kon maa ngi sant njabootu Cheikh Mor Ndiaye Dabaye gi yëpp sama waajur yi nga xamante ni ñëwoon nañ ci bërëb bi maa ngi leen di sant Euh, di sant kilifa diine yi nga xamante ni yëpp ñoo ngi ci réew mi ndax wax dëgg yàlla bis bi fu nekk kilifa jóge na fa ñëw euh, kilifa yi ma bokkal dëkk bi ñoom ñëpp ñëw nañu sëriñ Cheikh Ndigal Fall ndawam ñëw na sëriñ Hassan euh, sëriñ Cheikh Ngunda Fall doomam ñëw na sëriñ Lamine Mbacke Baara ibnu sëñ Mbacke màddina ñëw na fa tabaarakala sëñ Moustapha ibnu sëriñ Cheikh Say Mbacke tuubaa ñëw na sëriñ Salihu Mbacke ñoom ñëpp ñëw nañu daal fa tabaarakallaahu kilifa diine ñëpp ñëw nañu waa kër maam allah ji sëñ Muniiru yónnee na fi ndawam ñëpp ñëw nañu waaw ñi ma gis ak ñi ma gisul ñëpp daal gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp waaw lu ci waaye def yàlla na suñu borom fay la ko moo ngi koy ñaan bu baax a baax xam naa liñ ciy dolli rek mooy gën a ñaax doomu aadama yi ñu góorgóorlu ci jaamu yàlla ndax jamono ji ñu toll jamonoy jaamu yàlla la ndax adduna bi dafa jeex ba pare ndax Seydi Xaaji Malik dafa waxoon ni qasira yaraaha alxaafiluuna tawila wa ma hiya ila lamhatun wa xurub nee na àdduna gàtt na lool waaye ñi sàggan dañ koy gis mu gudd lool nee na àdduna boo bëggee xam ni mu gàtte dafa mel ni jant bi fenk na sona àdduna jeex na kon loolu lu gàtt gàtt la ba def fi lu ñaaw wala wax ko fi du ko jar kon jullit di war nañu wóolonte ci seen bopp mooy yàlla dëkk bu mu bari jàmm du fa am te Sénégal bu ñu xoolee mooy yàlla gi daf fee bari yi ñu gis léegi muy am ci dëkk bi te miinuñu ko woon xamuñu ko woon tàmbali di fi bari muy wàllu ngóor jigéen gii nga xamante ni saa yoo xëyee yaa ngi dégg kilifa yi ñu baree bari di eh, ko di ci wax ah te ñay eh, ko ko te ñay faral di def loola ay doomu jullit la ñuy doon ñay jëmmal loolu di jéem a may ña ca nekk doole ay doomu julli rek la ñuy doon kon nag jamono la joo xamante ni tiitaange jot na ci ñëpp ku nekk war ngaa tiit ah, ku am sa njaboot it na ko yar ndax suñu borom mi ngi di wax naan yaa ayyuhal lazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yàlla nee na yéen ñi gëm yàlla na ngeen xettali seen bopp ci sawara waaye bu leen ci yam nangeen ngeen ca xettali waale seen njaboot loola nag gis nga suñu borom ba mu koy wax kenn xamul na mu toll kon boo xoolee jamono ji ñu toll ñi am seen njaboot rek ñooy dem di dugg ci yenn yi di def yoo xamante ni yu dangereux la yoo xam yu yàq société la yoo xamante ni yu yàq njaboot la kon loolu war-war la ci képp koo xamante ne am nga sa njaboot rek nga fexe ba sàmm leen ci diine fexe ba sàmm leen ci lislaam fexe ba sàmm leen ci yaru diine loolu moom ñoo leen koy fàttali bu baax a baax bu ko defee nag li ci dolleeku rek muy kilifa diine yi ñoom it war war la ci ñoom ñu liggéey ci topp gi leen nit ñi topp teg leen ci yoonu njub ndax kilifa gu ñu fi topp te ñi la topp wanoo leen yoonu njub wala nga bàyyi leen ci seen bakkan wala la leen neex nga di leen ca jàppale di leen ca dimbali boo légee yowmal xiyaam xuloo dina am ci diggante sëriñ ak taalibe ndax loolu suñu borom wax na istabarra allazina tubiu min allazina tabaau wa ra'aw al وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فمي مجرك نيوم نيار بولغي موي سرين بيغا خامتني بيمو نيكي في تي كوسوف كاكو توبون داو كو خمال يالا لولو بايكو تي بكانم ولا ديكو دغرال تي لامو نيك غير لاموي ييكتي ديكو جوخ kee tamit di ko ko jox moom mu di ko warlul ay aljanna yu mu tegul ci dëgg boo légee yomal xiyaam xuloo bu métti rek mooy am ci seen diggante ñoom ñaar te xuloo ba nag fa muy tàmbalee mooy ca sëriñ ba ndax sëriñ ba mooy njëkk a dañtalu ci taalibe bi dina xamal ko ni ko lépp lu ma la doon dig ci àdduna di la wax ni boo ñëwee fii boo toppul yàlla boo ñëwee mën naa laa jox aljanna loola moom dara laa ci mënul bu ko defee tamit taalibe ba la mu koy mujj wax rek di ko xamal ni ko yow daal warkat bu mag a mag nga la ma daan wax ci àdduna ma jël sama alal di la ko jox di la liggéeyal coono bu nekk ma di ko daj ah, nga di ma diggi àjjana ñu ñëw ba fii ngay dencalu naan mënoo ci mënoo maa yóbbu aljana bu ñu yàlla delloo waatoon ci kaw suuf kon dinaa la jox xar bi fa nga ko doon waxee yëgal ñëpp ni kii li mu doon wax dara la ci mënul bu ko defee yàlla bu leen bàyyee ba ñu xuloo ba xuloo ba jeex léegi la muy mujj def ñoom ñaar ñëpp rek nee na amul kenn ku ciy génn sawara muy sëriñ ba ak taalibe ba kon loolu lu mat a bàyyi xel la kon nag sëriñ boo koy topp na la teg ci yoonu njub ndax sëriñ Tuubaa wax ni تالله ليس ينفخ شخصا غدا عند حلول رمس الغدا سيغ توبا نك لومو ديم باديكو وات لوما تباي خيل تا سيغ توبا ليمو وات دا فا ييغلاني نيت كي سو فاتو الك باني غاسال كو باميل با دوغال كو تي بير با نياكو تي جون دوغال وان كو غيناو ديم نيبي سيغ توبا نينا دار دوكو فا جارين لولو نجوب جي مو نيكي وون تي كاو سوف ريك كو فاي جارين كون نك نانيو فخي با نانيو تيغو تي اك نجوب نانيو فخي با تك تي اك نجوب نجابور جي نيو تيغ لين تي نجوب ñi nga xamanteni ñoy kilifa yi diine yi luar war war la ci ñoom kilifay aada yi loolu war war la ci ñoom ndax boo xoolee Sénégal tamit yi fi xew ku war na la jaaxal raye bu bari bii nga xamante ni mi ngi am nga xamante tay tey ku ñu rey yow yaay perte ka nga xamante ni moo rey ko final ko am ñoo xamante ne ay manam euh, maanaam droit de l'homme wah. ñuy wax taxaw di wax yu kenn xamul lu mu doon buñ nee pennu l'islam ñu ni duñ ko fi indi dafa dis waaye yalla lépp lu mu def yàllaa gën xam koy wax mani bu fekkoon ni benn nit dafa rey nit ñu jàpp ko rey ko euh, ku nekk yëg ni euh, diw ba mu reyee dañ koo rey ci tayef yaakaar naa ni rey gii ñuy gis ci Sénégal dina wàññeeku ci bu gaaw a gaaw a gaaw ndax yàlla lu mu def rek moo ko gën a xam bu fekkoon ni képp koo xam dafa dugg ci kër jàmbur jël fa lu mu moomul dem ak moom bu ñu ko jàppee dagg loxo ba bu ëllëgee léegi sàcc yi néew ndax ku sàcc ñu dagg sa loxo bu ñu demee ba ñëpp ñu dagg seeni loxo ci sàcc yi bu boobaa kenn dootul man a sàcc kon suñu borom lu mu wax rek mooy doon li wér waaye nag luwaay yàlla yi bi ñu ko jëlee sànni ko fële jël ay luwaay tubaab indi yaakaar ni moo gën a baax wala moo gën a méngoog jamono fitna jii ñu nekk moom duñ ci jóge benn yoon kon nag maa ngi leen di xamal daal ni war-war la ci état bi ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax xam ne daal ñun li ñu leen di dimbalee mooy ñaax leen ci diine ñu fexe daal bu ñu amee occasion lu mu tuuti tuuti ci mën a appliquer diine yi boo xam day indi sécurité ci réew mi loola nañ ko daal di def ndax loolu mooy doon seen noflaayu ñoom ndax looy yàlla yi nga xamante ni moom la ñuy wax naan dafa diis ak yooyu ba bañ koy appliquer suñu ko bàyyi euh, maanaam suñu ko jëloon doxal ko rek alkaati yu bari yi ñuy jël di ci def xaalis su bëree bari di maanaam di jël ay xale di leen former di leen dugal yaakaar ni dinañ mën a indi sécurité bële moo ci gën a gaaw mooy jël luwaa yàlla bi rek teg ko bu ñu ko tegee rek léegi caaxaan yi ak yu bari yi ñuy gis daal di mooy euh, euh, wàññeeku ci dëkk bi waaye nag fekk defuñu ko rek moom dañuy continuer di jël ay xale di euh, naan dañuy renforcer sécurité bi waaye bu boobaay jafe-jafe day gën di am rek loolu daal moom ñoo ngi leen koy jox benn message boo xamante ni bu ñuy bàyyi xel la bu ko defee daal ñu xam ni jamono ji jeex na ba pare kenn ku ci nekk na nga xalaat bu ëllëgee sa tëddaayu bàmmeel nga xamante ni soo faatoo di nga laytaayoo sa lay euh, loxo nday joor bi ñu jël suuf sotti la ko ci kaw bàyyi la fa dem ñibbi lépp loo fa jëful ci li nga xamante ni mooy li suñu borom bëgg santaane ko fitna dikk na ci yow jafe-jafe ñëw na ci yow te bu boobaa it fa tabaarakallaahu yaa fay nekk rek wéet fa waaye boo fa duggee am fa jàmm bu boobaa di nga réccu lépp loo doon saxe ci kaw suuf ngir xéewal yu neex yu yaatu yoo xamante ni yàlla dala ko fay defal loolu yëpp nag ci ni mu amee mën a amee rek mooy aaye bi yàlla wax ni yow man wattaqu yawman turjauna fihi ila allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la moon kenn ku ci nekk waral ragal boo ëllëgee taxawaay bi nga xam dina ko taxaw ci kanamu boromam bu ko defee la nga doon jëf yàlla matal ko ci yow te bis boobu yàlla du doon kenn kon ñoo ngi jéggalu ñëpp di jéggal ñëpp bis bi daal képp ku fi teew na ko sëriñ fàllu doon ñaane te mooy ku fi teew yal na eh, yàlla wàcc àjjana ci yow ku fi teew rek yal na yàlla dogal mu doon sa aljanna yal na ko yàlla def ci barke sëriñ Touba barke sëriñ Abdou Lahad Mbacké mi nga xamante ne moo ci joxe woon ndigal ci barke sëriñ Modou Fallou Ndiaye Dabaye ah, ci barke nitu yàlla yi fi teew yëpp loolu ñoo ngi koy ñaan yàlla yal na ko yàlla def yal yàlla xëy ñu ci boppam yal na yàlla xëy ñu ci siraatal mustaqim lépp lu ñuy am yàlla na doon yàlla lépp lu ñuy ñàkkit yàlla bu suñu borom bokk yal yàlla saxal ak njub bis bu ñu fi jógee yal na yàlla may ñu yóbbaale imaan bu ñu faatoo ba ñu dugal ñu ci bàmmeel ba ña ñu doon roppan ñu ginnaaw ñibbi yërmaande ji gën a màgg yal na yàlla defal ñu ko boo lëggee yomal xiyaam bu yàlla bu ñu yàlla dekkalee yal yàlla dekkal ñu dekkal bu gaaw bu yomb lool jullit yëpp yàlla yàlla yóbbu leen aljanna yàlla bu yàlla yóbbu benn jullit sawara euh, euh, Thiès Prestige ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm fa tabaarakallaahu ci taxawaay bi seen kilifa dumb yaa ñoo ngi koy gërëm ndax ku fonk kër gi la nag fa tabaarakallaahu lépp lu fi xew ay ndawam a ngi nii di ñëw sëñ Moon Ndiaye Jóob a ngi ni daanaka programme bi yëpp fa tabaarakallaahu moo ko yore woon doxal ko noo xamante ni xol bu fi ñëw sa xol sedd na euh, am méngoog xaritam naar fa tabaarakallaahu ñoom it ñoo ngi nii taxaw ndax lii sax dama ne leen woon sonn naa waaye nag ñu ni ma rek jéemal rek kon maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di sant sëñ Lamine njaay ci borom xam-xam bu rëy bu rafet bee moom it ñoo ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla yàlla gën a dolli xam-xamam mission bi mu nekk di liggéeyal diine di liggéeyal l'islam yàlla na ko ci yàlla jàppale bu baax a baax ku ko bëgg laa ku ko fonk laa ndax xam naa ni xam-xam fees na dell ci moom yàlla yàlla gën ko cee jàppale bu baax a baax di sant maam dem ba Cuun mii nga xam moo toog ci sama wet di sama xarit moom ba bis bi teroo ba léegi bàyyiwuma guddi ba bëccëg fu mu nekk fu mu nekk rek maa nga fa di sant Yaaya Kamara Male nga xamante ne wàllu communication bi jëm ci man moo ko yore loolu it bëgg naa adduna bi yëpp xam ko xam ne daal sama communication lépp lu may war a def mu jaar ci média ci loxoom ca ko teg loolu maa ngi koy xamal ñëpp ñëpp nañ ko xam fa tabaarakallaahu daaru rahmaan it maa ngi fàttali mbooloo mi eh, xeer wañ fa war a teg muy xeeru jumaa ji incha allahu la 7 décembre lay doon denc ci amal ay liggéey yu yaatu nag dinañ ko yaatal bëgg nañ Sénégal yëpp yëg ko bu sooba yàlla ba buñ ci eggee daal mu des mu doon bis boo xam daal bis bu màgg màgg lay doon ci lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.